الحمد لله الذي أنزل القرآن على قلب رجل عظيم من أعظم العظماء في العالم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen ndokkeel di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi di bisu alquran nga xam ni dëggalati na waxe aji wax ju mas a wax ci barab bu ñu doon defe lu mel nii délégation ba jóge woon Algérie ka jiite waat ci yàlla ni dem na réew yu bari dem na dëkk yu bari waaye ni ñu mokkale alxuraan fii ci senegaal moom déggagu ko gisagu ko wax na dëgg jamono bi ñu toogee xale yi def seen kéemaan yi ci alxuraan day mel ni ñi leen di seetaan ñu ngi ànd ñoom ci loolu kon loolu dëggal na ko waaye ñi ma yërëm mooy ñi nga xam ni moo di lajnatu taxkiim bi ñii àtte xele yi ndax ñii ñépp at mi ñépp a man fa tabarakallahu waaye li gën a yéeme mooy ñi nga xam ni dañoo mel ni dañoo jóge ca daara ja lu yàgg nekk seeni kër ba nekk ci ay métier ba di ce liggéey lu leen war a fàttaloo alquran tey ñooy def lii ci alxur alquran bii xeetu nattu dafa bokk ci yi gën a rëy am njariñ tey gën a nekk ab soññe ci ñi jóge ci daara yi nekk ci magasin yi walla atelier yi ñu nekk bitim réew ca Mooduga ñooñu ñépp tey lii ab soññ la ci ni alxuraan jiñ fi jële woon bis dina ñëw ñu laajaat leen ko kon téye leen ko kon jërë ngeen jëf ci bi la liggéey alxuraan nag da di téere bu rëy téere boo xam ni ci sunu dunduk tey ak gu ëllëg leere téere boo xam ni moo di ad dustuurul muhkam moom la yàlla xereñe def ci lépp luy jëriñ doomu aadama tey ëllëg kitaab ak kitaabul karim sëriñ tuuba mi nga xam ni daa bëggoon alquran réyaloon alquran mas nay wax ak alquran ni ko kitaaba rabbi innaka alkitaabu wa fiika qaala dalika alkitaabu yow sama téere borom bi maa ngi seedee ke yëgle ni yow képp dib leneen lu ñuy tuddeb téere dub téere bis dina ñëw dootoo ko gis bis dina ñëw dootoo ko jàng waaye yow képp yoway téere bi yàlla joxoñ te joxoñ bi du dagg mukk ndax saalikal kitaabu joxoñu bi yàlla fa mu ko teg dootu fa jóg te yow la yàlla joxoñ ni la yowa kon téere boobu tey nga xam ne wàcc na lu ëpp junni at te loolee sëriñ bi waxoon ngeen dëggal ko tey wone ni mi ngi nii ci biir dënn yi kon saalikal kitaabu moom la téere boobu nag màggal ko ak teral ko mooy sunu teraangay tey ak sunu teraangay ëllëg kon war nañ koo màggal bu baax a baax di sant xele yi xalaat xalaat bu rafet bii joŋante bu ne am na ci réew mi yépp baax joŋante nañu kan moo dàq tajwiid te waa Sonico di ko def at mu nekk joŋante nañu kan moo dàq bind alxuraan te di ko gis te waa C3S di ko def joŋante nañ ci façon alquran yépp kon la waaj a waxoon ni alquran a ngi senegaal mooy xeetu maninu alquran wu ne def nañ ko ab ëtt ci biir alxuraan ci biir Sénégal wane ni ñii mën nañ koo bind te duñ ko gis kon kooku moom ak mokkalam werante wuñ ko ñii mën nañ koo jàng wiit ko ñii mën nañ koo tari te duñ ci gàgg lu ci nekk am na ci biir alquran bind nañ ko ba tàyyi te duñ ko gis ñoo xam ne tey bu ñu ne woon alquran lakk na bi billah boo leen dugalee ci néeg ñu génnewaat alquran bindaat ko mu mel na mu melan loolu ci senegaal gii wax naa ni bu fekkee ni am na feneen it mooy fi mu gën a baree euh, dafa am benn tarikat bu fi tudd ab dëkk bu ñuy wooye xel koom mën na maa wax ni mooy sàqum alquran ndax bi fi boroom di jóge bi mu ko sancee ak bi mu fi jógee at yu bariwul la mu sanc fa daara daara jooju kero bi mu wuy wujjee boroomam kaamil yi ñu gis ci réciteur bi ñu bind ko jébbal ko ko laata mu fee jóge ñaari junni kaamil la yu topp daara ju am ñaari junni élève sax bariwul waxuma laaj daara ju am ñaari junni yu bind kaamil te gisuñu ko kon ña fa bindul kenn xamul nuñu toll yal nañu ko yàlla fayal kon loolu mooy ni alxuraan Sénégal la dëkk alxuraan sunu jas la nanu ko fonk te gën koo fonk rawatina nag commerçant yi xam ngeen ni jaay ak jënd mën naa fàtte loolu ne xaw ma lu tax gaa yi tànn foofu ak tànn atel yi tànn ci bureau yi moo ci des insha allahu taala waaye nag yaakaar naa ni di ngeen dugg itam bis ci waañ yi dem ci waañ yi nag xool jigéen yi ñi nekk ci néegu sëy lu yàgg te alxuraan nekkoon seen dënn bis dina ñëw ñu woo leen nag ci taabal ji kon nañ ko waajalaat bu baax a baax waaye nag ñu jàppale leen nag ndaxte lii ay fere yu bari la fere yu bari la xam nga ku wër Sénégal képp la ngay lakk ci essence kenn xamul nu mu toll la ngay fere ci ay hôtel yooyu fanaan kenn xamul nu mu toll kon loolu kenn ku nekk ci nun war naa am loo ci sasoo loo xam ne ëllëg bu taxawee nga mën a fëgg sa dënn ni bokk naa ci ñi ko taxawal kon yal na yàlla fay ñëpp gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp yaakaar naa ni am na kayit yu ñu doon joxe am ca lu ñu bind ak comme numéro damaa xam lu ngeen ci jublu benn benn carte bu ñu doon joxe dafa am benn carte bu ñu ma jox bi ma toogee fii dañ caa bind deux mille francs ak benn numéro téléphone xam naa day wane ni boo ca defee ca numéro boobu deux mille dina ñëw ah kon gars yi def leen ca deux mille it bu ngeen ca dolleef sero nag moo gën bu jàmbaar dikkee dolliwaat ca beneen sero nag moo gën kon góorgóorlu leen ngeen xool carte boobu ku ko amul nga kobos ka ko am ni ko carte bi nu mu doon ak ñaata mooy numéro bi nga mën caa tàbbal loo barkeeloo ci liggéey bi incha allahu taala bu boobaa mën ngaa fëgg dënn ni bokk naa ci ñi liggéeyal alquran tey yal na yàlla fay ñëpp yal na yàlla barkeelal sunu xabasatul quran yi ñiy mokkal alquran nga xam ne ñi fi tari ñëpp a mokkal alquran ndax niñ leen doon tariloo moo wane ni ñëpp mokkal ndax dafa mel ni ñi doon ñi doon tariloo dañoo xaw a soxor tuuti ndax benn aaya bu yomb duñ la ko tariloo kon nag comme aaya bu yomb duñ la ko tariloo te nakk nakkaloo ci la muy tekki mooy ak mokkal kon yal na yàlla fay ñëpp te gërëm ñëpp sant leen sant itam sëriñ daara yi leen doon jàngal ñooñu yal nañu barkeel te yàgg lool te ñoom itam ñu fexe ba fay loolu nag na ngeen fay nag bor bi ki ñu jàngal ba mu mokkal na fexe ba lu mu néew néew ëllëg moo it mu mokkaloo ay nit moo xam ca biir bitig ba la leen di jàngal moo xam ca magasin ba la moo xam ca atelier ba la waaye fu ci nekk nit mokkale na fa alquran jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ah, jërëjëf sëñ imam moom daa xam li ne ci marché bi ba noppi xam daara ji loolu nag daa jafe waaw loolu nag daa jafe bu ko bu ko bu ko ak jotoon mayoon kay dañ koy boole ci candidat yi sax xam naa ni waaye <laughs> imaam la fi mu ne moom macha allah am na ci ñaari délégation yoo xam dañ leen a fàtte woon tudd sëriñ Xaadim Mbàkke mu sëñ Abdou Karim. teew na fi sëriñ El Hadji Ibrahima Fall jiite mouvement Sun of Time di doom ci El Hadji Njóogu moom it di ko bëgg daara di nitu daara da ko fee fekkul waaye kon dina teew moom it teew na fi ci final bi lañu jëm incha allahu suñu Seex Awa Balla dafa am lu mu junj sànq lu am solo mooy li mu mujjee Seex Bachir daa doonul nit kuy laaj moom du ko def man xam naa ko 2007 ba léegi ñooy ànd mosuñoo tàqali ko ñii it xam nañ ko bu baax a baax gis nga liggéey bii muy def ku xamoon coono bi mu ciy daj ngir alxuraanul karim di nga ko yërëm wax naa leen fii sànq Cheikh Bachir damaa gis muy dox parcours yoo xamante ni sëfooru oto yi dem di kii sax duñ ko def maanaam Kédougou 700 kilomètres nga déparé Dakar àgg kii 23 heures jógewaat fa 11 heures ñibbisiwaat loolu sëfoor sax du ko def. Cheikh Bassir bi da koy def lan la fa doon def benn nit dong la doon wër muy benn candidat bu mu war a présenter fii ci concours alxuraan bi loolu yitte mënu koo weesu maanaam 1500 kilomètres nit waru koo daw ci ñaari fan wala 48 heures loolu normalul kii kon daa am énergie bu koy inspiré mooy lan bëgg gim bëgg alxuraanu karim loolu moom lu ñëpp mën a seede la Cheikh Bass ñu bari dañuy gis muy dem ci marché naan ko laaj ma boo paree ma jox la junni wala nangam mais alalam la koy defee alalam lay yëkkat di ko joxe léegi leen gis sax ku barkeelu ni question bi nga laaj tey maa koy fay waaye boo ko joxoon fukki junni mën naa dem ca marché ba ñaar fukk ñàkk fa ñaar fukki junni dangay ngay ànd ak moom oto bi di daw ba si yàgg mun a taxawal gis ay ndongo daara yu romb mu taxaw di leen laaj yow boo mujjee ànd ak moom sax boo ak muñ di ngeen Cheikh Bassir mi moom xanaa dara da koo ñurut ay ndongo da leen di gis sax ñuy dox bu ñu doon filmer li muy def ci journée comme ni ko politiciens yi defee di nga gis loo xam da naan doomu aadama sañ te def lii waaye moom da koy def ngir alxuraanu karim Cheikh bas mi am na association taxawu daara association taxawu daara boo nga xamante ni Cheikh Bass mi moo koy def man li ma jaaxal mooy Cheikh bas am na daara dëkkam am na daara dëkkam de xabbaan kenn mësu koo dégg daara jooja bokk na ci daara yi gën a yeyoo ndimbal fii ci Sénégal waaye association taxawu daara bi ñu taxawal gis ngeen lii vidéo bi dëkk bi fii dëkk la bu nekk ci Mankandombe maanaam biir soor la ñoom dégguñu sax wolof Cheikh Bassir moo dël tànkam dugg ay moto dem ba ci dëkk boobu ngir yóbbu leen ndimbal mooy daara jii ngeen di gis lii yàlla rek moo tax mu def ko te lii maanaam dangay ngay jéggi Sénégal dugg Gàmbi génn Gàmbi duggaat biir Casamance jaar Sédhiou sóor a dugg fii ruq bi ñuy wax nga xam ne lii bu dul alxuraan moom Cheikh Bachir du ko xam moom lii da koy def ngir alxuraanul karim gis nga Cheikh Bass mii mouvement taxawu daara bii ñu teg dañuy taxaw ni daara sàngam ñaari weer dinañ dem ci daara sàngam ngir yóbbu fa addiyee bu ñu xaymaa mu toll ci budget quatre cent mille wallaahi lazim léeg-léeg ñu dem ba dajale du mat moom mooy génnee poosam dugal ko ci ma loolu fekkee naa ko ba tàyyi alxuraanu karim moo tax mu di ko def alxuraanu karim moo tax mu di ko def maanaam dafa am lu muy def lu am solo xam nit ñi yëguñu ko man sama rôle la ma wane ko maanaam gis nga li ñu xam ci influenceur fii ci réew mi mooy nit ñoo xam dañu ay référence mais Cheikh bas fexe na ba gis nga commerçant yu bari sañootuñoo gàddaay alxuraanul karim faaw ñu jàng ko ndax bañ a moom mu leen di laaj loolu mooy influenceur influenceur doomu aadama ngir mu def dara moom da koy def Cheikh Bass mii est-ce que xam ngeen ni est-ce que ngeen ni jël na ay sëriñu daara yoo xamante ni moom moo leen di fay weer wu dee te du kenn nekkul ci biir daaraam ma wax leen ko ngeen yëg ko te loolu taxawu daara bii moo leen di fay Cheikh Bass mi def na ko loolu mooy participer ci emploi ci senegal ay nitu daara la jël di leen fay weer bu dee ku nekk yoral leen salaire yóbbu leen ci ay daara yoo xamante ni du daaraam moom bi nekk xabaan xanaa loolu mooy def te yàlla tax fii ONG yi taxawu daara bu doon daara moo leen tax benn daara du am jafe-jafe bopp rek leen tax jóg Cheikh Bachir mii nag boppam taxu koo jóg mais daara moo ko tax a jóg kon kuy jàppale alxuraan jàppale ko mën naa waat ci kaamilu suñu borom bi de xaqiiqun alayya allaa aqula ala llaahi illa al xaq am na loo xam moom sañ naa koo waat man naa waat ni kii ku ko joxoon un milliard tey ci daara lay dugg loolu mën naa ko waat ndax man fekkee naa ba yëf yii di tàmbali ba keroog muy agsi fii muy jël alalam di ci def lu ci doomu aadama def moom moo la ci def fuuf ngir alxuraanul karim moom ci yitteem ma wax leen ni ba muy mokkal alxuraan mag la yitte ji sëñ Mouhamed mii am ba mokkal alxuraan Cheikh Bachir mii yitte jooju la am ba mokkal alxuraan man ak moom ñoo bokkam benn daara ak ñii ba ñuy jàng ba ni ñuy génnee ci école bi di am bac Cheikh Bachir mokkalu alxuraan dem na ba université soor a mokkal alxuraan ndax loolu yomb na kii daal ci tënk ma bañ a guddal mooy rek influenceur la daal baatu influenceur moom mooy Bachir mii. maanaam fexe na ba ñi bëggoon arxuraan gën koo bëgg ñi gàddaawee arxuraan ñëw di wëlbatiku di jàngat arxuraan te lépp nag ci réseaux sociaux rek la koy defee te loolu lu jafe la sëñ bi kon finaal bi mën ngeen a tàmbali incha allah ñu xool candidat yi incha allah jërë ngeen jëf. sëriñ Mouhamad Mbacke mu sëriñ Abdou Samad bu moom it teew na fi ñi ngi rafet lu baax teewaay bi. waaw sëñ bi mooy wax ci turu mu sëñ Mouhamad Tine en attendant jury bi waajal li nga xam ni moo di candidat yi ak li nga xam ne li lam mooy résultat yi ñu déglu ko li desate ci jotaay bi yàggut final rek ka ci des bu soobee yàlla ci ñaari minute rek sëñ bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëñ Basirou Gueye moom mi nga xam ne dafa wëllëranteeg Muhammad Tine ngir jëmm yàlla manoon naa tudde bés bi su fekkoon ne poñoxitu àddina lay wut kon du ko tudde Muhammad Tine ndax Muhammad Tine mu nga dëkk ci réseau Thiès dékk ci département de Mbour dëkk ci commune de Sessène arrondissement de Sessène ay sàkket ñoo ñu wër ay sàkket moo ñu wër kon su xoolee yàlla nag li mu may muhammad muhammad maa toog maay toog ak moom di def wàcce kaamil su ma ñëwee dama koy wax quinze seize dix-sept loolu laay wax duma ko wax benn joxoñ su ma nee quinze xam na fu mu commencé ba ci dix-sept kon lu ngeen wax ci moom su ñun ñi dëkk ak moom man mi nekk imaamu ratibam su ma seedewul kon mel na ni doy léegi nag sëñ Basiir lii délégation ay bokkam ay xaritam ay wëllëreem lii lañu jël barkeeloo ci bés bi doo ñu gën a gore li ñu bëgg dañoo bëgg am yiw gën a am yiw kon bisimilah. jërëjëf kon ñu déglu ñi nga xam ni ñoo doon jury